lu tollook ñetti moto pomp ak yamuy àndal moom la réewum turki indi ci dëkk bu tedd bi di Touba jaareel ko ci kuréelam gii di Tika ngir wollu nag askan wi nga xam ne ni jamono yi dañoo am ay jafe-jafe ci mbënn mile. kuréel gi di junnatun li man nazamaho ñoom lañ ko daal di jébbal. ñoo ngi am mbégte lool di réceptionné matériel boo xam ne bari na njëriñ lool lool lool ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ndax euh, ay moto pompe yoo xam ne yu grande capacité la mag ndax tey jii yu 300 mètres cube heure indi nañ ci ñett yoo xam ne fan la bàyyi ko mi ngi bàyyi ko euh, ambassadeur u Turquie bu ñu waxee ambassadeur Turquie nag nga xam ne li muy def ci wàllu aide ci wàllu jàppale dañ ko jaaree ci TICA muy seen jumtuwaay boo xam ne ñoom lu am doole la di liggéey ngir seen diggante ñoom seen réew ak yeneen réew yi nga xam ne seq nañu jëflante ah ku ne xam na ne nag ñun suñu doxin suñ mun taxaa mësta wax kenn kay leen jàppale loolu yoonu murid doxewul noonu euh, waaye ñoom am na lu ñu jàpp ci seen xol seen diggante ak sëñ Muntaxa ca ba mu ba la xewoon ci seenum réew ba mu fa amee sëñ Muntaxa réagir jëf ca loolu dañ ko bàyyi ci seen xol ba nga xam ne ba ñu déggee li xew Touba ci lañu jëf jëf joo xam ne jëf ju ràññeeku la ñu war koo wax nag di ko réceptionné nii ànd ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo seq bureau wu euh, Junatun ginnaaw ñetti pompe yi nga xam ne nii jamono yi askan wi soxla nañ ko lool ngir mu jàppale leen ci manque ndox mi nga xam ne mooy ndoxum taw bi yeneen i jumtukaay yu am solo moom la liggéey bi daal di àndal. matériel bi yamul ci moto pompe yi am na tuyau refoulement ak aspiration am na tuyau refoulement 1500 mètres loolu ku ne xam ne ne yenn saa yi da ngay jëlee euh, li ngay pompe danga koy war ko drainer yenn saa yi day am distance bu sore par rapport ak réseau bi fi mu am euh, regard loolu nag kon lii ndimbal la loo xam ne war nañ koo wax ñëpp dégg ko loolu nag ànd naag lépp luy accessoire ba ci sax tey ji ay bot paire de bot pour jàppale ñiy dugg ci biir ndox mi di dimbali nit ñi loolu day sécurité am na deux 200 paires de bottes boo jëlee tamit manteau de pluie mu imperméable yoo xam ne ñiy wàcc ci terrain bi mën nañ ko sol di gën a muy gën a loo xamante ne ak ay gilet 200 gilet ak lépp lu jëm ci diggante collier yeeg ak PVC yeeg ba ci ay huile bi nga xamante ne mooy tax ñu mën a jëfandikoo machine yi lu yàgg te gàllankoor du ci am ñi daal ci gàttal euh, Turquie ñëw na ànd ak Touba ci lii. réewum turki nag mën nañu jàpp ne mooy réew mi jëkk a tàbbal loxoom ginnaaw bi cheikh mohamadul muntaxa mbàkke taxawale kuréel gii di junnatun li man nazamahu ngir nag xettali mboolem jullit yi nga xam ne dañoo am ay loraange ci mbënd milee jëf ji nga xam ne ni nag tey jii turki yi defar nañ ko day daal di feddale kóllëre rek diggante Touba ak réew mi nga xam ne nii cheikh mohamadul muntaxa mbàkke xalif général de mourides defoon na jëf ju mel nii ay weer ci gannaaw gannaaw jee ju rëy ji fa amoon wa jannatan li saalikin muridi wa